jagleel leen 60 millions de nos francs CFA euh, ngir gën leen a euh, jàppale euh, ci seen i biir kër donc c'est important tout de suite sans plus tarder ñu dem découvrir cette toute nouvelle vidéo qui fait le buzz instant bi nii muy paraître paraître réalisé bien sûr par le grand Rex T bokk ci Alien Zik ana waa Parcelles Assainies ana waa banlieue ajal Wajagile, wajagile, wajagile, wajagile. dina ñu wax kan moo réalisé euh, vidéo bi source d'inspiration bi euh, fan la jóge il est plus à présenter Rexti euh, borom Allion Zik di def sa carrière solo bonjour et bienvenue sur ce plateau di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ça fait encore plaisir ma jàkkaarloog yow di la wax ne t'es un gars sympa koo xam ne maîtriser nga li ngay def et puis di la ñaanal mu gën a jëm si kanam ça fait plaisir tamit ma ñëw si plateau TFM parce que nekk na benn média boo xam ne ñu ngi def seen liggéey si wàllum. c'est la star des télévisions africaines. voilà mhm. yàlla gën a jëm si kanam. amiin yaa rabbal soxna yi nekk fii ni amiin leen wax ni Rex T from mhm. Alienzik ñëw pour présenter sama vidéo single ko paraître paraître. moom la ñuy dundee saa su ne ah da war a dem ci euh, rendez-vous avec un directeur général danga war a dem ci sëriñ bi euh, ziar ko da nga war a dem seeti sa sa sa belle-mère wala sa sa sa beau-père euh, loolu yëpp dafay am paraître noo war a solo noo war a defee est-ce que gën na gënul lu mu ci munti doon li ñuy war a njëkkee mooy cette source d'inspiration qu'est-ce que vous a motivé pour que nga ne single bi dama koy tuddee paraître bon li ma motivé c'est le de loo xam ne ñëpp dañ koy gis mooy ñu gis ni la vie elle est de plus en plus fausse société bi ñuy dund elle est de plus en plus hypocrite ñun dañuy am lu ñuy woote woo alors que li nekk suñu biir sax boo moytul du loolu. Mhm. comprendre nga les gens dafa am benn modèle bu ñu leen imposer. boo xam ne ñu ne si kaw ñu leen ko imposer ne leen pour ñu accepter la si société bi il faut mu am loo mel il faut mu am loo yor. Mhm. soo melu noonu soo yorul loolu tu es marginalisé. léegi nag nit ñi ngay marginalisé ñoom ñu nekk si marge bi dañ bëgg bokk kon kooku yaa ngi koy pousser muy cultiver di def leneen lu nekkul si moom yaa ngi koy pousser. bu yorul mu ne day dem wuti. Mhm. ba pare du avec tous les moyens nécessaires. Sénégal damay wax fépp dans le monde nit ñi kii bi la ñuy seetlu quoi mooy c'est-à-dire lu lu sotti la ñuy wër xamuñu li sotti nan nga def ba mu sotti. Mhm. alors que loolu moo gën a important. parce que xëyul rek wadd. ma ne ko parce que xëyul rek wadd. xëyul rek wadd am na euh, euh, parcours. xëyul rek wadd parce que comme j'ai dit li ñu war a li gën a important mooy la manière. oui ni ngay amee. bu dee am yomb na mun nit ñi ngi fiy dóor nit ñi ngi sàcc nit ñi ngi triande après ñëw toog mais déedéet yàlla xoolu lool yàlla mi ngi xool nan nga ko amee yàlla mi ngi xool ban moyen nga jaar parce que moyen yooyu noonu moom moo ñuy tàbbal tàbbil ëllëg safara wala mm-hmm. àjjana mm-hmm. léegi moyen yooyu noonu mooy nan nga koy defee si ngay amee nit ñi kenn yoru mm-hmm. li ñu war a njëkk wane mooy dañu war a xam ni la matériel c'est pas loolu moom mooy àdduna li nga xam mooy la plus grande richesse mooy li nekk ci yow mooy say principe mooy sa conviction say gëm-gëm sa culture loolu kenn mënu ko dindi ci yow mais bu dee matériel yaa koy liggéey am ko kon bul nangu nekk esclave de ce matériel loolu la son bi di wax Samira euh, Rex ci nekk et aussi euh, déglu naa son bi bit bi nice na torop lyrics bi aussi ndax yow yaay bindal sa bopp bien ba man maay bindal sama bopp euh, mun naa wax ni musique bi laa dul def mais musique bi dina bokk ci conception bi c'est-à-dire kii tëgg musique bi day toog ma ne ko voilà si composition ma ne ko lu mel nii laa bëgg bu indee lu mel noonu ñuy dugal di wàññi di defar di yokk ba ñu am lu mu bëgg kon am na même mise si sama composition musique mooy arrangement bi ak euh, si création bi bu dee écriture bi maa koy bind bu dee façon de chanter bi man maa koy xalaat maa koy teg même la vidéo l'idée général conception bi yëpp man maa ko xalaat parce que comme je dis yow artiste en tant que tel yaay xam li nga bëgg ak nan ngay def ba jot si macha allah man euh, li ma ko bëgg a laaj mooy que lan moo tax nga choisir style musical bi. li tax ma choisir style musical bi c'est mhm. par rapport ak album bi waaj a ñëw. damay génne benn album boo xam ne dama bëgg def peut-être lu kenn defagul ci musique. Mhm. mooy dajale deux mondes musicaux différents. mooy le monde africain les mhm. sonorité africaines. et le monde occidental comme lii nga dégg nii mu nekk ñaari style musique yu wute pour def ko ci benn projet. loolu mooy objectif. très bien ñu ngi dem ci tabaski ñu bàyyi la nga def un message à l'endroit de ñi nga xamante ne ñu ngi lay bàyyi un peu partout à travers le monde. avant dafa nekk fii mais maa ngi koy saluer parce que moom moo waaw dafa tardé waaw <laughs> di wax ni ça fait un plaisir message mooy <laughs> je m'apprête à sortir benn sama prochain album dina génn d'ici le mois de août incha allah Alien Zik tamit sama groupe ñoo ngi waaj a ñëw et puis di leen wax ni fans yi dinañ am ay œuvre yu dul jeex yoo xam ni yu am recherche yu am créativité fi ñu doon xaaree je vous remercie <laughs> J'aimerais sortir loin d'ici, prendre mes clics, clics et mes claques. changer d'horizon pour des lendemains mais mais meilleurs. Dans un trou noir, on se réveille cherchant l'histoire. Yes, Merci beaucoup. C'était bien sûr euh, Rexti euh, qui n'est plus à présenter avec son euh, nouveau album euh, ou bien single bien sûr disponible sur le marché national et international. Allez asalaamualeykum sëriñ bi wala soxna si yaa ngi may dégg tabaski la ñu wax de dañu yor suñuy ay teraanga ba yaa ngi may dégg 88 628 76 06 06 88 628 20 20 bu ko defee ñu wax jox leen ngeen wax delloo ñu euh, yëf ya dem ca kaw ca kanam ci lu baax ndax xam ngeen ne euh, ginnaaw ku dul may boppam lu mu am jël waaye lii lañ ñu jagleel mu di euh, émission bu mucc ayib bi nga xamante ne ku ci nekk mu ngi ciy gis boppam di sant di gërëm bu baax les sénégalais de l'extérieur de la diaspora en attendant ñuy ànd ak benn téléspectateur en ligne dañuy dem ci Jili CSB Jili CSB ñu fàttali leen mu ngi nekk ca rond point cité Kër Gorgui muy première Afrique de l'Ouest euh, di def ay euh, produits yu mucc ayib moo xam ay produits électroménagé wala ay produit électroniques euh, donc c'est important da ngeen dem foofu ci Djily CSB au 33 822 47 00 wala 75 141 34 34 ñu continuer di ko wëyal ñu war a dalal yeneen i gan sur ce plateau leer na la ne tey Djiby Dramé dinañ ko fi am Esbo dinañ ko fi am Lama Wag moom tamit dina yegsi ak Khadim Mbaye moom dina yegsi donc ak MC ñëpp incha allah euh, dinañ leen euh, bégal bu baax a baax a baax Xaadim Mbay euh, dañuy dem ci Xaadim Mbay nañ seetaan li nga xamante ne mën nañ leen ko proposer ñu xool ko en attendant ñuy dalal ki nga xamante ne moom mooy Xaadim Mbay sur ce plateau 88 676 05 05 ayca ñu dem. économique les de la télé Futur Média miroir du Sénégal la star des télévisions africaines euh, ci noonu nag euh, gis ngeen ni mu diigee ni mu tembe euh, muy ndaanaan kuli fadrin macha allah mën sañse lool def lu mu miin kooku nag mooy Xaadim Mbay muy géwalu Sëriñ fallu Xaadim ñu ngi lay ziar di la jaajëfal te di la jox sa wàccuwaay na nga def. waaw alaaji Nicolas maa ngi lay delloo ziar. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonent bi. Mhm. sant sunu ñaari waajur. sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul sant Alaaji Fàllu Mbàkke mi nga xam ne nag moo ma may wii fi man Xaadim Mbay géwlu sëñ wala ah moom ak soxna si micro bi micro waaw maa ngi leen di ziar baax naa nag euh, da da nga tërëf waaw da nga tërëf moo tax léeg-léeg di nga wax daal di yóbbu micro bi benn beneen sens macha allah waaye lu mu ci munti doon man dinaa dinaa la jàppale yaay sama xarit ndax yow yaay géwlu sëñ Fall waaw Xaadim Mbay waaw waaw muy Koli Fadrine dégg ngeen léegi gis ngeen vidéo bu mucc ayib Samira Xaadim a xaadima ngi nii ba pare son bi man euh, ki ko dippee laa bëggoon rek mu wax ñu euh, kan la. waaw Samuel Mohamed Sarr. sama waay eh waay. dégg ma ni ko jasit ci teen. ragal du ca naan ndax da ko dul ñeme. mu ne ko Mamadou Dour saar sa baay ministre la Cheikh Tidiane Sy sa baay ministre la. Mhm. Ibrahima Sarr sa baay ministre la. Babacar Sarr sa par baay moo àndoon ak El Hadj ma Mathiaka sunu mbokk mi waaye engage cim réewam nag bëgg kuy liggéey bëgg kuy def lu baax mhm. mel ni Youssou maa jigéen borom kër. macha Amadou Ndella Manu jam saabi Ablaye Daaro Mbaar ak Matar Daaro Mbaar mu ànd nag ak chef de l'état Macky Sall te naxu ko waaw ak Marème Faye Sall yaay Amadou kooku laa ko ne woon jasit cib teen mm-hmm. kii fees na de ku ko ma sa way wayaat ko de eh, la yuusu ne woon Baba Cissé Awa Diagne ku ko ma sa wax waxaat ko waaye Samuel Mamed Sarr ku ko wax waxaat ko dane woon Baba Cissé Awa ku ko mas a wax waxaat nga ko dëgg la waaye alaaji Samuel Mohamed saar mu sëñ Saaliw waaw soxna faat Jaxate ma ci ay gu neex ga macha allah mbokk bàyyam alaaji Fàllu mi mi nga xam ne moo ajali bàyyam màkk wooteel ko màggal gi bàyyi sëñ Modou Moustapha Fall kooku de ko mës a waaw waxaat macha allah sama xel dafay dem ci euh, waa kër Serigne Cheikh Gaynde euh, Fatma ci Sicap Rue 10 ñu leen di delloo njukkal bu baax a baax euh, di ci jiital nuyoo Serigne Omar Mbacke sëñ Alioune Mbacke moom la ñuy jooy booba tey te noppee guñu waaw Gaynde Fatma waaw ndeysaan sëñ Modou Moustapha Baye ma jëlee raay bi njaaree mi di ko Touba wax nga ku baax xam nga nit day def dara sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ Modou Moustapha Baye naal bu sëñ Bamba naaloon eggali na ko maami soxna na bu Mbàkke kooku sëñ Abdou Fatah baayam eggale na jumaa ji ca Taïf mbokk ndeyam sëñ Mbàkke soxna loo bàyyi soxna Mbóoj ayca biti ayca Nicolas comme niñ ko waxee rek moom fi mu toll nii comme liñ naan géwalu sëñ Fallou Mbacke mhm. di bàyyi sëñ Abdou ma borom Makarimal Akhlaq di ci ziar bu baax a baax nag sama yaay booy yaay puy waaye bëgg nañ nga ñëw fi mu ton nii ci projet yi nga xam ne fi mu toll nii moom ngay waajal ndax nag nee naa la ku nga jóg sañ sa ba jekk def sa lu rafet lii comme ni ko di ko laa waxee léegi ñëw toog jàkkaarloo ñu waaw foog nga am nga foog nga am nag loo xam ne da koy teg suñu loxo ñu waajal xew-xew bi waaw projet yi mooy def album mhm. ndax nit bu defee bu buñ ko xamee ci dara mhm. daf ko war a wane ba ñëpp gis ko amaguma cassette mais Sénégal ñoo ma bëgg dëkk bu ma wàcc mhm. fekk naa fa doomu Sénégal yu baax yi fii ci réew mi bitim réew ñuy consommer lii nga xam ne mooy suñu aada ndax cosaan xanaa xamoo ne buur bi fi mës a wàcc mhm. ànd nga ak géwal waaw waaw nag géerantu du ko xam géer pire koy xam géer dafa yàgg ak géwal mhm. déggoo ñu la su xare ma saanaam waaw géwal a daan jiitu déngu bal yi kanam bal bu nu mës a dóor cib xare rek mhm. balaa dal géer dal ba géwalu tey yi dinañ ci kanam waaw tey yi léegi arme yi dafa gën yokku de fa ndox daan taa wax de <laughs> fa ndox daan taa yow da ngaa mel ne ku dégg sama waxtaan maak sama benn mbokk démb ci guddi euh, soxna Anta Gueye mu soxna Bali Muntaxa lapsuka bi ngoone maa sàmba ak génn ngoone maa sàmba xanaa xamoon ne fan ndox danta boo demee ba tey fekk fa tepp tepp am na ñoo xam ne dangay xool seen image xam ne ñii géwale leen jik d'accord moo tax ma ne Anta boo maajee sax ñu xam ne yaa doon Ngóone Latiir di nuyu bu baax ajaratu Ngóone Ndooy ministre macha allah mi ma àndaloon dem ci sëñ Abdou Karim mi bu sëñ Fàllilu jërëjëf soxna moomi laay dalal ca Touba mu Seex la gërëm la bu baax ñu ngi dem nag ci wàccaay bu am solo mu di tabaski mhm. dinañ la dalal ci suñu yeneen i plateau bu ko defee ñu gën a jëmmal mhm. euh, lii nga xamante ne euh, mhm. moom ngay def ndax xam nañu ne euh, ndaanaan kuli fadrin nga waaye liñ ci bëgg waxtaanee yëpp du fi xaj li ñuy def daal mooy dañ koy dog yóbbu ko nag ba ci lii nga xamante ne mu ngi sunu kanam muy spécial tabaski plateau yu mag yooyu nga xamante ne boo ñëwee nga defati say ñetti xob rek def comme ni nga ko tàmm di defee ndax loo miin la lan ngay tàggoo très rapidement rek di sant réew mi di leen wax ne amuñu fayu ñu dëkk ci réew mi ndax ñun ñëpp nuy teral tabaski gi mm-hmm. ñu baax ñu lu baax lu ne la ñuy def waaye dafa am ku dajeel màkk soxna Khady Kébé Matar Thian ambassadeur sëñ Fallou bi El Hadj Ndiouga Kébé baayam. macha allah taaral na yoonu sëñ Bamba bi. Ndiouga Kébé mhm. mbala sa bintaaram jore sa mboj ma jigéen jóg kooku nag doomam laa fekk dëkk bi ñuy wax màkk Kor Matar Thian ambassadeur mel tabaski di nga yegsi waaye Fallou Galas Lo jërëjëf ku bëggati mu neex rek na nga ki boole Galas Lo sant nañ la gërëm nañ la toj na Touba merci merci Khadim Mbaye Khadim ñu ngi lay jaajëfal bu baax muy géewalu alaaji Fallou Mbacké di ci euh, ziar euh, képp koo xamante ne soppeewu euh, Serigne Fallou nga ak foo munti nekk ñu ngi leen di ziar di leen bégee te di leen souhaiter de passer un bon week-end avec nos programmes sur la télé Futurs Médias attendant ñuy dalal euh, yeneen i gan ku mel ni Kader dinañ ko woo léegi nii mu ñëw sur ce plateau Ras Maroon ñu ngi koy delloo njukkal bu baax ci liggéey bu mucc ay bi nga xamante ne mu ngi koy def euh, ci rajo Futur Média tout de suite sans plus tarder ñu ànd ak yéen ci bu am solo ndax xam ngeen seen petit gàlle mm-hmm. seen petit gàlle seen petit génie waaye bii mooy seen petit gàlle c'est tout de suite et maintenant Presse Art présente le Summer Fun Show. Nouvelle émission sur les plus belles plages du Sénégal. ay yendu yu amul fenn ay surprise yu bëri dans Summer Fun Show. pendant deux mois huit primes huit équipes nar a jongante avec des jeux yu métti. Show. sama fan show émission bu bees tàq concept bu musul am ay innovation yu bare bare bari ci plage yi gën a rafet ci biir Sénégal dama ni ay équipe yoo xam ne ñoom ñooy compétit célébrité ak sénégalais bu mu neex mën ngaa bokk dem leen inscrire ci suñu ay page est que pare ngeen eh gars yi yëg leen ambiance technicité bravoure courage esprit d'équipe c'est une seule arme pour rester dans la compétition et gagner seen petit gàlle ci biir

voilà très bien retour euh, sur le euh, plateau Weekend di fàttali ñi nga xamante ne ils de nous rejoindre euh, sur les antennes de la Télé Futur Média la star des télévisions africaines euh, Weekend Star nag euh, ngeen ko lool macha allah weekend bu jot moom moo leen di gunge pour ngeen euh, am li nga xamante ne mooy cawarte pour passer un excellent weekend 88 628 65 65 88 676 06 06 88 628 20 20 wala voilà, 88 676 05 05. c'est vrai euh, bi ñuy ñëw ñëw na sax mais dafa def benn petit crochet parce que tout simplement euh, diplôme bi nga xamante ne moom la ñu jox njabootam euh, moom la demoon euh, récupérer loolu moo waral ñenn ñi dañuy jàpp ne elle est venue en retard mais elle n'est pas venue en retard elle était bien sûr là avec nous mais dafa def benn petit crochet diplôme bi nag ñoo ngi ko jagleel ki nga xamante ne moom mooy Ngoné bi Ndiaye c'est avec beaucoup de fierté que nous soulignons le passage de Ngoné bi Ndiaye au du préscolaire à l'élémentaire donc màgg ak sagoom euh, doon ci euh, njaboot bu ñuy euh, tiitaroo mu doon njaboot ju barkeel su ma waxee loolu xel yi dafay dem bien sûr ci boroom xol bu rafet bi jaw fara ma jaw xoor kooku mooy suñu waaj yi mado jaw ki nga xamante ne bu waxee waaw waaw ñu xam ne dëgg-dëgg ku maîtriser yegg si na mado bonjour et bienvenue très euh, cher Gaye Ndioro alors solennellement maintenant ma tax jaay li nga xamante ne moom moo di sama sant ndax noblesse bi nekk ci Guéyeen ni kon nag maa ngi li koy delloo c'est un plaisir de te retrouver sur le plateau également la team ah ça c'est mes bonbons chocolatés ah. gën naa eh waaye sama sang bi tey moom bu ma ko amoo ci pistache non amoo ci pistache lii moom am na ci di sa yaaraat sunu sang bi nga xamante ne moom laa bokkal plateau bu ma ko gisee sama xel day dem ci sëñ Modou Kara macha allah kon moom itam maa koy ziar ko jox mhm. wàccu waayam arrêté yow mhm. da nga tardé bu <laughs> ma bëgg ngeen yedd ko voilà voilà tey lii fii kenn tardé wu fii kenn tardé wu mais maa la raw mais def nga loo miin de ah, def nga loo miin de agencement de couleur yi ah. mais mais agencement de couleur bii mais euh, fi euh, oh dañuy wax dama tardé wu ma. déedéet mosoo tardé c'est que tey. Euh, mm-hmm. bus laa ah, ak téléspectateurs yi. tata eh, na ko eh. yàlla yàlla na ko yàlla yërëm. Eh, ah mu nekkoon euh, référence nekkoon daanaan. dama amagul oto. Ah. bu ngeen di koy conjuguer. da nga koy da waaw da nga koy def kii da nga koy def pluriel waaw da nga koy maasale bu ko def bu ko def mu ah, individuel ah, ah, waaw waaw waaw waaw waaw bàyyi li fu individualité yooyu tamit dañuy def ñun déedéet yaa ngi seetaan léegi mu jeex mais <laughs> kaay ma la rëccu ma lu ma duggee tata de ndeysaan saafante nga ah bon anecdote boo ma fa fekk hmm. poste dafa mel ni poste bi dis na réewande ngi am ci dëkk ba léegi déedéet dossier <laughs> feñaal <laughs> waaw defal lii maa ñëw ma daal affaire bi bu dawee ba rond point rond-point Grand Dakar bi. waaw waaw waaw. man maa ngi ci biir carapule bi. ca garage waaw maa ngi ci biir tata bi. Mhm. mais tata bi daal moo ñëw ba ci rond-point bi rek xaw a koñe ak kii bi. carapule bi déedéet. mais apprenti ngi réew ba léegi. maa la wax loolu. na woon fa woon. apprenti bi eh, eh, yooyu. Ah, ah yooyu ñuy def ah. noonu. man apprenti bi man gëm naa ni cëppeelu na avant ñaari oto yi di laal ak ci bëgg histoire. teel oh. rek mu cëppeelu saa. Ah, jaay jaab ñu gën taxaw. jubal direct ci receveur uh-huh. yow seku yee. seku la koy woowee seku. seku waaye doon xool ngeen di dawaleen. dafa nekk ci kaaf. waaw cay lii. <laughs> receveur bi xool ko ci kaw ba suuf ne ko xamala la. Mm. man du ma sa morom du ma sa mappandoo waa bis bee njëkk a yuuxu nekko ko yow bul wax ak moom demal nga wax ak chauffeur bi chauffeur bi mooy dawal. chauffeur bi ak chauffeur bee dinañ wax man kii laa bokkal liggéey ah. waaw waaw ñoom ñaa ñëw ay seku lañu. yaa ngi dégg <laughs> nee moom kooku la bokkal liggéey. receveur bi xool ko ci kaw ba suuf ne xamala la man du ma sa morom te du ma sa màppandoo d'accord demal nga sangu ji ba pare ñu doog a wax asoe awoy réew nga yow ma nga xool ci kaw ba suuf naa ma demal nga sangu ji yow yow su ma naree sangu ba pare di yor teen bi nga yor nii ma bañ a sangu moom ma ko gënal sa xeesal bu timbi tàmba bi di mel ni xooñ fii ñuul fii xonk man faalewu ma la ñu def caaxaan apprenti bi def dëgg d'accord xool receveur bi receveur bi xool ko receveur bi ne ko man ak yow maa ngi lay dégg nga naan ñoo bokk liggéey bokkuñu liggéey man du ma sa nawle maa ngi toog ci sama biro yow lang nga ba say tànk yàqu xam nga apprenti bi mënuñoo taxaw normal yow taxaw <laughs> waaw waaw bi arrière xoolaat ko mënu ma taxaw normal yow mm. taxawaay bi du taxaw normal waaye dégg nga naan da ngaa nekk sa bureau man ñeewu ma la. Mhm. Sénégal ba mu daj yéen a fi gën a xatle bureau am. <laughs> man faalewu ma leen. mi ngi ñaaw. apprenti bi ne ko. d'accord receveur bi xool ko mu xool ko mu mhm. receveur bi ne ko man du ma wax ak golo. Mhm. Ah, déedéet fa la coow lu jógee nag. ñoom ñoom wax leen lu ne ci àdduna ñu supporté ko mais golo. waaw ah. mënuñu koo supporté. le singe le singe enfant moo tax moo tax ma jël sama taal moo tax ma jël sama taal pour tegale ko ci taabal. yow saa yee. xam nga golo yow. Eh, man su ma nekkee golo àll yow nga nekk golo ah. parc am ah, ñu tëj la sa biir kaas say client nekk say visiteur di la jox ay onda ki ñaar fukk ki cent mm. la yow sofooree anowaa ñu dem ñu ñu wax golo bu amul liberté man golo bu amul liberté la anowaa des applaudissements voilà très bien jaajëf macha allah toujours égal à lui-même euh, Toch Euh, sunu xel dem ci euh, waa Kër Massar ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal bu baax kenn dootul ne euh, banlieue nañ ne bon lieu mhm. Parcelles unité un jàpp 26 di béggee waa yembal waa route de Boune waa Jaxaay ak ñi nga xamante ne ñoo ngi foofu ca cité Aliou Sow ci noonu nag ñu fàttali leen 88 676 05 05 88 628 20 20 wala 88 628 65 65 88 676 06 ko defee ñu wax jox leen ngeen wax delloo ñu am na kenn ci buumu jokkoo bi Euh, sëriñ bi wala soxna si asalaamualeykum rahmatullah taala wa barakatuhu bonjour salaamaaleykum asalaamualeykum suñuy teraanga la ñu yor de waaw bëgg leen jàppale accompagner leen en toute sécurité ci lii nga xamante ne moom mooy fête de la tabaski ak lu wees sax tabaski ah 60 millions de francs CFA la ñu yor euh, di ko bëggalee euh, sénégalais yi bu baax a baax na nga def salaamaaleykum ay waay waay waay waay waay nekkoo allo waxal ak moom yegg seegul yegg si na wala yegg seegul anamu ay waay waxal ci kaw dégguñu ñun dégguñu fii maaleykum salaam rahmatullah nanga def noo tudd ak foo ñuy woowee s'il vous plaît mais déggin bi déggin bi fii dafa dafa dafa néew dafa néew torop xanaa xanaa xanaa ndekkee xanaa ajaa mu sëñ Fallou joxu la ay bagaas voilà nga ne oui maa ngi lay dégg léegi na nga def ça va très bien et vous tur bi ak foo ñuy woowee s'il vous plaît oui yaa may dégg tur bi naka la tur bi tur bi tur bi tur bi le prénom Khady Gueye macha allah. xadi géey xadi bay ah xadi jéey jéey jéey d'accord xadi béy béy béy waaw kon boog xadi béy xadi bay maa ngi lay maa ngi lay ziar foo foo ñuy woowee nii fu mu toll nii Tiwaawoon Pël très bien naka waa Tiwaawoon Pël ah an naka ngeen di dundee wàccaayu tabaski bi foofu ca Tiwaawoon Pël ah mais xam nga ne lu mu dëgër dëgër boo duggee Télé Futurs Médias mu yolom lool waaw xel dal macha allah bàyyi ma bàyyi ma bàyyi la ak Samira mu dem ci carte bi ah bu ko defee euh, defe naa ne war nga ko waa xadi Dieye Khady Tiwaawoon Pël xadi Dieye waaw ñu xool rek luñ ko luñ ko mën a accompagner comme ci tabaski bi te yàlla rek tax ah ñu xool rek ñu mën a def groupe Futurs Médias Khady Dieye noo def baa yaa ngi am jàmm xaw ma taxawee nii ñu couplé tuuti ma xaw a soob yooyu tuuti sax. mais mais xaw a def buzz. mais Khady yokkal baat bi tuuti rek s'il vous plaît. waaw Khady. Khady Khady ñu ngi koy dégg waaw. Khady Khady fu mu toll nii euh, lan nga ko bëggoon laaj. Khady ah damay xool rek moom euh, lan la jëndagum jënd na tissu wala defar na bopp bi wala jënd na xar. Khady tontul ci loolu. <laughs> jënd nga tissu wala jëndagoo tissu defar nga bopp bi wala ah. defaragoo bopp bi. waaw waaw waaw temps day xadi nee na defaragul dara du bopp du ah? tissu du dara léegi wax la moom ci région xadi xadi kon foog ñu dugg Sénégal ayca tànnal région bu la neex xadi xadi ban région ngay tànn fii ban région ngay tànn fii xadi Sédhiou Sédhiou mel ni xoolal ñu Sédhiou xadi ñu dem Sédhiou waaw nee na nga dem Sédhiou samba salsa eh waay salsa salsa salsa salsa Sédhiou lu mu wax salsa. Sédhiou Sédhiou. 4 3 2 1. go Sédhiou waaw 50 pour Khady Dieye. yesaay mais Khady Dieye. Khady Dieye mba mbaa yaa koy yëg. mbaa yëg nga ko 50 000. francs CFA lafcat lafcat yaa ko moom yaa ko moom ñu ngi lay souhaiter bon week-end voilà merci beaucoup bul coupé bul coupé ñu jël la euh, ci suuf foofu ci équipe bu euh, Pape Samba euh, ñu jëflanteeg yow bu baax a baax ndax teraanga yaa ngi nii du jeex benn yoon 60 millions de nos francs CFA du groupe Futur Média ànd ak Sonatel Orange ngir béggal di gërëm sama tata bii Mado day sama xarit waaw sama sœur yu baax mm-hmm. sant nag yow di la sant yow bi nga ne sama xarit nga te yàgg nañu la loolu loolu suñu borom def na ko sama mbokkum taal loolu yàgg nañu lool macha allah sant bu nañu fu ànd nañ fu waaye defar nañu ay cafe fu ne. dëgg la ah, waaw jamono ji nga xamante ne euh, De La Fosse daan nañ fa Sikar. Euh, ca euh, Blaise Diagne daan nañ fa Sikar. di def le tour des écoles de Dakar. bés bu ne ñu jagleel ko benn école. donc loolu sunu borom def na ko léegi nag li ñuy def mooy Kader. nañ seetaan vidéo bi te dellu si waat. bismillah Weekend lañu wax. ñi ma seq xam nga bu ñu ma seqee rek ma def ni ma war a def. kon ñi seetaan vidéo bi te dellu si awa yaay awa yaay awa yaay yaa sunu awa yaay sunu yaay awa yaay wax leen